ñu demee hôpital tamit ñu def ay prélèvement docteur bi ne ma ndax danga doon jël ay pilule ma ne ko déedéet ma ne ko déedéet ma ne ko déedéet ma ne ko déedéet ma ne ko déedéet ma ne ko déedéet ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci fay ne ma tu risques de tomber enceinte wala da nga sentiroon ne tu es wala affaire yooyu bu ma ne ko non non xaw parce que bëgguma woon joxe détail bu mu ne ma kon jëlal pilule fekke ne tu n'es pas enceinte mën nga jënd pilule yi nga naan ko. asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen di leen wax ngeen di abonné bu baax a baax a baax a baax di like vidéo yi di like vidéo yi di like vidéo yi gars yi di leen like vidéo yi yéen ñi nga xam ne aboneegu leen daw si leen gaaw ngeen gaaw abonné. kii moom xam naa ne ay waxam ay mbiram duma si yàgg quoi parce que moom dafa fen fen fen bay nuroo golo quoi kii du ma ko wax si ay dàngin golo lay nuroo ndax mën a fen dégg ngeen ko ci tribunal bi bi projet bi amee mu taxaw foofu foofu ne euh, dañ ko doon Ousmane Sonko da ko jox xaalis naan ko jëndal ay pilule te dégg ngeen ko li mu waxoon ci interview bu njëkk ba nee na nee na mosu koo naan kii sax duma yàgg si ay mbiram nañ jàll ci leneen quoi isaay moom awuma jotam vraiment xam nga dafa daw moom tàppet la ndax xam nga Aïda sax daa baax mais Aïda daa am loo fàtte wax xam nga Macky Sall sàcc la lépp waaye sàcc suuf gi na da koo fàtte am na suuf koo xam ne moom ci bureau jigéen gu mu suuf sàcc suuf lay def sàcc suuf <laughs> sàcc suuf kon loolu ñun xam nañ si dara na bàyyi sàcc suuf gi si biir bureau na ko bàyyi

benn kilifa woo ma ni ma kat. mais Cheikh tamit li nga wax leer na dama leer tuuti rek. li ma wax leer na si yow li nga jàpp yow. Mhm. parce que nee naa la fii am wax mhm. ko dégg noonu laa laa wax. ah man saaguma kenn na ma ko déggee gone gi bëri noonu lañ ko déggee. man tamit day suuf waaw bu nu àggee mhm. suuf si ma waxoon ne da koy jaay wane naa suuf si doyen de si tribunal. est-ce que nga yow yow pas gis nga bu ngeen ko wax man waxuma man wax man ma wax Macky Sall ak fii nga xamante ni mooy mooy mooy tribunal Macky Sall moo jaay suuf soosu léegi déglu ma rek man dinaa wax samay wax de mënoo tee ma bañ a wax man suuf soosu laa wax yéen bu ngeen ko bëggee turé beneen suuf yéen a xam suuf soosu ah, beneen bi non la ñoo ko tourné ci suuf ba ma ko tourné yéen ko bëgg a wax parce que li nga xalaat ah. bokkul ak man li ma wax suuf aéroport bi ma ko jaay dégg nga bi loolu ak moom tamit waxam ju rëy nga xam ne moom la fi waxoon bañ jàpp ko ci tëj ko ci instant bi ginnaaw nag ba mu wëlbati ba changé position woon ba mu taxawee woon bu njëkk nee na yéeyaay day weddi lam waxoon nee na waxul woon loolu te ay waxi démbam ak waxi teyam ñu ngi nii tege lépp ngi nii tege moom mu ne waxul woon loolu xam ngeen fan yi gis ngeen projet bi bu mu amee mu ñëwoon ci tribunal bi après mu taxaw mu nekk fa ay deux heures de temps mu génnaat journaliste yi sax ñoom ñoo ko woomee naru fa woon a jaar dafa naroon continuer dem ñibbi journaliste yi laaj ko ne ko lan nga lan lan nga ñu mën a wax mu ne waaw man ñëw naa xool naa mais li ma gis mooy la ma waxoon bu njëkk rek moom laay waxaat mooy euh, lii bi ay complot la. gis nga moom mi boo leen ko xoolee ñëwaayam taxawaayam ñëw ba ñëw foofu lenn waralu ko gis nga foofu bari na ñu fa ñëw ñoo xam ne dañ faa ñëwoon uniquement pour xool si toroxtaange président Ousmane Sonko. mais yàlla ji moom képp ku mu narul toroxtaange ci yow kenn mënu laa toroxal am na ñoo xam ne du jëmmi Ousmane Sonko moo leen fa indi woon am na ñoo xam ne li leen fa indi woon mooy ñëw dañ ci kumpa ak fekke ci la nga xam ne moom lañ jàppoon ne moom mooy li am te li ngeen jàppoon ne moom mooy li am du lenn lu dul da ngeen yaakaaroon ne di ngeen fa ñëw toog Adji Sarr génnee leen ay vidéo wala mu génnee leen ay audio bu ko defee boo leen génnee taxaw naan ah man de am naa lu ma bett wala rus naa waaye rus googu ngeen doon yaakaar ne lu lu nar a jëm ci beneen côté lay doon lu wëlbatu ko jëmaat ci yéen lay doon. yow ba nga changé sa taxawaay dafay yàgg yow xawma lan la la Ousmane Sonko def ba nga jékki-jékki rek man na ku ko bëggatul a gis kon man tey su ma la xëyee xëy gis la nga da ngay ñëw tribunal di fekk ay projet te ñaata projet ñooy am ci tribunal bi te teewoo fa nga bàyyi ba projet Ousmane Sonko am koo xam ne yow léegi dootoo sax jaar si turam wala boo koy jaar si turam doo wax si moom lu baax. projet bu toll nii am nga ñëw fa naan da ngay fekke si après nga génnaat da nga naroon dem man seetaan naa vidéo bi Dakar Dakar da génn di dem ba ba journaliste si ñoo la woowaat pour nga ñëw ñu ne la may ñu rek ñu laaj la benn kàddu après si ngay doog confirmer nga ne voilà parce que mënoo woon wax lenn lu dul la nga gis ci biir mooy ña fa nekkandoo ak yow loolu la ñu gis. te mooy ña ñi nga xam ne dañoo ngir fekk si toroxtaange Ousmane ko am na si ñoo xam ba ñu génnee gàcce gi ñu àndal daf leen mayeetul ñu taxaw di wax xam fan lañ mujjee mooy di jéggalu ak seetaan naa ci benn vidéo dinaa leen ko woon dinaa leen ko jox. ngeen xol video bi man Ousmane Sonko dama koy balu ak hmm ben hmm mo koy balu ak ba ci kanamu yalla hmm ndax man mësuma and ak Ousmane Sonko hmm fépp fu ma tan taxaw fépp fu ma taxaw fu ne buñu waxe mané Ousmane Sonko liñ koy jinn yépp moko def hmm démb nak kenn nettaliwu hmm daf ma jaral ma jël sama journée dem ba tribunal. keneen bu ma dara ma tok ma lu lepp ma ma ba fin. parce que dama ci doon wérante man APR la hmm. man Macky Sall la ba jeex tak dem tribunal tok nit ñi di wax may déglu di déglu. parce que man musuma tek sama tànk tribunal di seetaan ay projet ay yoon musul ap té ma première fois. démb man dama yému ci yalla parce Ousmane Sonko lenn rek laa bëgg lii lay war a sori mën naa ko ñaan si yàlla Ousmane Sonko na ma baal ak bu fekkee bu ñu dégg sama kàddu na ma baal ak. Mhm. maa koy jég maa koy baalu ak ba si kanamu yàlla. Mhm. gis ngeen fii rek fii rek fii rek la affaire yi di mujjee fii rek dafa am ñoo xam ne nag dañoo xamul dañoo xamul mais tamit man d'accorduma d'accorduma 2021 ba léegi nga continuer naan xaw ma lii dafa leer naññ. ndaw si wax ay audio génn ojo yi fiite ak yeneen ak yeneen ak yeneen certificat médical ñëw taxaw loolu yëpp mën nga ko boole continuer di dute naan am na ak amul booba léegi xanaa bu dul dara bu certificat médical ñëwee nga war a xam ne lii amul tey jii nan laa ko mën a waxee capitaine Touré bi nga xam ne moom moo doon def enquête yi ñëw wax lu leer naññ loolu yëpp ngeen ba ko boole bàyyi ba jour projet bi ngeen di doog ne am ngeen lu leen leer. li leen fa indi woon du ñëw pour am lu leen leer li leen fi indi woon mooy ngeen ñëw pour fekkee torox tàngi président Ousmane Sonko waaye kooku yàlla moo namul ci moom mu torox yow Cheikh Bara Dolly looloo la fa indi woon amoo fa la nga bëggoon moo tax nga génn naan la ma waxoon de maa ngi ci ba tey. il faut ngeen assumer ko il faut ngeen assumer seeni responsabilité di xam nga ñàkk assumer seen responsabilité weesuwul nga taxaw wax mag Sall wax di nga ko wax. ñu to dox ba jamono ji xaw ma fu ñu la dugal fu ñu la laax nga génnaat naan waxuma woon loolu ak naan suuf gi ma waxoon mooy est-ce que est-ce que waxuma ay suuf ay terrain quoi yow li nga wax leer nañ wala yow ñu nga doon ñun ñun ñi nga doon waxal ay chinois nga ñu doon làkk wala ay indo nga ñu doon làkk Cheikh Bara Cheikh Bara Dolly laa laay wax sax boo eggu ci Dolly ji mën naa mën ne Cheikh Bara Ndiaye laa bëgg wax te waxuma ak Cheikh Bara Ndiaye mu sell mi Cheikh Bara Dolly bu ñu fontoo li nga wax leer na xam nga dafa daw moom tàppet la ndax xam nga Aïda sax daa baax mais Aïda daa am loo fàtte wax xam nga Macky Sall sàcc la lépp waaye sàcc suuf gi na da koo fàtte am na suuf koo xam ne moom ci bureau jigéen gu mu recevoir suuf sàcc suuf lay def sàcc suuf suuf sàcc suuf lay def sàcc suuf <laughs> sàcc suuf loolu ñun nañ si dara na bàyyi sàcc suuf gi si biir bureau na ko bàyyi ndax sa ci suuf nday um réew mi moo tax réew mi mënut a avancé man yi wax samay wax la ma wax te jàpp ko ni moom laa wax jubluwuma ci ñoom liñ jàpp ni moom laa wax ma toog sama kër bi midi jotee benn kilifa woo ma ni ma kat. mais Cheikh Bara tamit li nga wax leer na dama lay leer tuuti rek. li ma wax mhm. leer na si yow ko dégg noonu laa ko wax laa wax. ah man saaguma kenn ko déggee gone gi bëri noonu lañ day jaay suuf <laughs> man day jaay suuf waaw bu nu àggee mhm. mhm. suuf si ma waxoon ne da koy jaay wane naa suuf si doyen de Ciss nee naa ah. suuf si yi nekk tribunal. est-ce que suuf soosu nga waxoon soosu man man suuf soosu laa wax man loolu laa si jublu parce que xam nga xam nga li am solo. mooy suuf la comprendre ñëpp moom lañ comprendre moo tax ñu woo la. gis nga sànni pas gis nga yéen beneen suuf bu ngeen ko mën a wax yéen yéen a ko wax man waxuma loolu. man naa wax mhm. man suuf si ma wax mooy suuf si Macky Sall jaay te nekk aéroport bi ak. hangar bi ak fii nga xamante ne mooy mooy mooy tribunal Macky moo jaay suuf soosu léegi déglu ma rek man dinaa wax samay wax de mënoo tee bañ a wax man suuf soosu laa wax yéen bu ngeen ko bëggee tourné beneen suuf yéen a xam suuf soosu ah, beneen bi non ñi ñoo ko tourné ci suuf ba ma ko tourné yéen ko bëgg a wax parce que li nga xalaat ah. bokkul ak man li ma wax suuf ay rapport bi ma ko jaay dégg bi loolu la